أعوذ بالله السميع العليم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن جعل أمر الدين أفضل ما سئل كل حين مصليا على الذي وجب أن يتبعه المؤمن في كل زمن محمد وصحبه الأتباع ma faaza man yasalu bintifaa'i mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu ca na ko gërëme te di leen ziyaar ca xorma ja gën a mat di rafetlu jataay bi lool muy jataayub lislaam jataay boo xam ne jàpp nañu ne jataay ëpp ko solo muy loo xam ne jullit yépp a ko waroon teewe ndax li ci juddoo ci njariñ àdduna bépp xaj nañ ci te loolu dara waralu ko lu dut ku tedd ki doon waxtaane ak liggéey bi ngeen koy defal muy salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi xam naa dañuy tënk wax ji rek ndax sunu mbokk mi fi jaar léegi muy Serigne Moustapha ñoo ngi ko doon bàyyi xel ci biir waaye mel na ne liñ naroon wax lépp wax na ko te jàpp naa ne tamit ñi jiitu woon wax ji benn lay doon ndax ci ki ñu wax liñ ci wax moom lenn rekk lay doon muy lu rafet muy lu baax te lépp di ay melokaanam ak i jikkoom yoo xam ne ñun ñëpp dañ ko war a roy kon ñoo ngi leen di sant bu baax yéen ñi taxawal lii day ñaan suñ boroom nangu liggéey bi bindal ñu ci ngën ji yool fulal ñu ko ngën ji ful boole ñu ko mbooleem jullit ci darajee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak xaadimam radiallahu taala anhu wa nafaana bi barakaatihi kon kàdd yi ñu ci yëkkati rek mooy kàddu yoo xam ne day dëggal li suñ mbokk mi doon wax rek xam ne dañoo ñëw ngir firndeel lim doon wax ci indi leen gaa yu baax yi fi jaaroon muy awliyaaw yi li ñu wax ci njariñi salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam nag ak ay ngëneelam akuk am soloom jamono jii da cee raw ndax mbokk yi Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu wa nafaana bi barakaatihi dafa melal diggante taalibe bi ak sëriñam ci ne taalibe bi ab liir la buy door a judd sëriñ bi di ndeyam ab liir nag faw mu aju woon nàmp ak teete kon ku ci sori ndeyam mën naa loru baa mu faatu meew mi nag mooy lu baax li leen seeni sëriñ di xamal di leen ci jaarale muy ndigali yàlla yi ak sofaan yi leen di won di leen ko moytuloo muy li yàlla tere waaye sunu jamonoy tey jii nag taalibe yi ñu ngi waaj a nekk jirim ngir ñàkk ndey yu leen nàmpal ñii bëgg àdduna ak poñetub àdduna ñeeral na seenu meew ñenn ñi bëgg nguurug àdduna ak dara ji àdduna fatt na seen balluwaayu meew làquwaay ak wéeruwaay di gën di néew te ab liir soxla na ndey ju koy sàmm di ko sang di ko solal di ko dundal ba mu dëgër ba mën a demal boppam dëgër gi nag ak manal gi boppam mooy àgg ci yàlla làq ngërëmam te loolu rekk moo war a doon yittey jullit bu ne ku ñu wax Sayid Ahmad Dahlan wax na ci téereem bi ñuy wax taqribul usul fi tashilil wusul li maarifati rabbi subhanahu wa taala wa rasul ne abdurahman ibnu abdurahman ibnu mustapha waxoon na ci téeréem bi tudd moom miratu chumus fi manaqibi alil aydaros ne mujjug jamono dinañu ñàkk ñu yare di teg jullit ñi ci siraatal mustaqim di leen àggale ci yàlla mu ne bu boobaa nag salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam rek mooy mujj di àggale ku bëgg a àgg ci yàlla mu ne mbooleem boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne dëppoo nañ ci mbooleem jëf yu baax yi sunu boroom da cay nangu lenn sànni lenn ndax ay ràgg-ràgg ba mu des salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa lépp lay nangu ngir fonk gu mu fonk sayyidina muhammad ak teral gum ko teral sallallahu alayhi wa sallam al cheikh hasan al adawi wax na ne al imam as sanusi ak ahmad zarruq ñoom ñépp wax nañ ne salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam day seetal xol duy ko ak i leer di wommat jaam bi ba mu àgg ci yàlla ci lu dul muy am sëriñ bu koy teete assaawi wax na ci téereem bi tudd xaashiyatu saawi muy tafsir bu am solo ne salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam day àggale ci yàlla ci lu dul ngay am sëriñ bu la ciy teete ndax nee na sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam moo lay wommatal boppam ndax dañ koy won salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam yi jaam bi di def moom it muy julli ci koo kii di julli ci moom nee na loolu la wuuteeg ngay sikkar tur yàlla walla yeneen sikkar yi ndax yooyu muy sikkar yi faw nga amub sëriñ wala seytaane tàbbi ca bu ko defee nee na doo ci jariñu alxulaymi nee na jubluk salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy jege yàlla subhaanahu wa taala ci jëfe ndigalam ak matale xàq ji dox sunu diggante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ñu ko sant yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon boo ko dee def jublu ga mooy jege yàlla ci jëfe ndigal lool yi waaye tamit dafa am xàq ju dox su lu digganteeg sallallahu alayhi wa sallam muy xàq yoo xam ne matale ko lu jafe la salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam tamit danañu ca dimbale nag ca matale googe moo tax abu hurayra radiyallahu anhu ne alsalaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam hiya altariq ila aljanna mu ne salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy yoonu aljana ku ñu wax ibnu nu'man ne alsalaatu ala annabi sallallahu alayhi wa sallam bi ijmaaci ahli alcilmi min afdali alacmaal wa biha yanaalu almaru alfawza fi alxaali walmaal nee na salaatu ala annabi sallallahu alayhi wa sallam boroom xam-xam yépp dëppoo nañu ne bokk na ci jëf yi gën ci jëf yi nee na ki koy def da ciy amee texe gog tey ak gog ëllëg cheikh Shihabuddin nee na wa fawaiduha bil jumlati wa tafsil fa hiya ashalu taati wa aqrabuha ila al malik al jalil wa hiya maqbulatun min kulli ahadin fi kulli xaalatin wa min al muxlisi fiha wa kada min al muraa'i biha ala asaxi al aqwal mu ne bokk na ci njëriñi salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam nekk gi mu nekk jaamu yàlla gi gën a yomb ci jaamu yàlla yi te gën a jege yàlla ci mbooleem jaamu yàlla yi te foo ko fi defee ak noo ko mën a defee yàlla nangul la ko moo xam ngay sellal wala ngay ngistal te nee na lii mu wax mooy li gën a wér ci wax yi a cheikh abdul wahab achaarani nee na a cheikh abul mawahib achadali wax na ne dafa gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulallah صلاة الله عشرا لمن صلى عليك مرة واحدة هل ذلك لمن كان حاضر القلب؟ قال لا بل هو لكل مصل علي غافلا ويعطيه الله أمثال الجبال من الملائكة تدعو له وتستغفر وأما إذا كان حاضر القلب فيها فلا يعلم الثواب ذلك إلا الله تعالى abul mawahib ash-Shadhili dafa wax ne dafa wax sallallahu alayhi wa sallam ne ko julli gi yàlla di julli fukki yoon ci ki julli ci yow benn yoon loolu ngir ki koy def di ko teewlu la wala ki koy def sàggane ko ñàkk koo teewlu la sallallahu alayhi wa sallam ne ko déedéet ki koy def te teewluwu ko ànd caaku càggante sax xam ne bay wu ca xel kooka la yàlla di julli ci moom fukki yoon may ko lu toll ci limu montagne yi ci kaw suuf ci ay malaayika ñu di ko ñaanal ak di ko jéggulul boroomam sallallahu alayhi wa tegal ko ca ne ko waaye ki nga xam ne dafa julli ci man ànd ak teewlu ko la ko ci yàlla di defal ci ay xéewal yàlla rek a xam nu mu toll ndaxu bariwaay alxaafiz alsaxaawi nee na al iraaqi wax na ne lam yaqtasir subhaanahu wa taala fi lsalaati ala nabiyihi bi an yusalliya ala almusalli alayhi bilwaxidati ashran bal zaadahu ala dalika rafaa achara darajatin wa xatta anhu achara sayiatin kama fi xadiisi anas wa zaadahu aydan ala dalika kitaabata achri xasanaatin kama fi xadiisi abi burda ibnu nayaar wa zaada fi xadiisi albarra wa kunna lahu ka itqi achri riqaabin mu ne sunu borom subhanahu wa taala du yem ci julli ci yow fukki yoon kese boo jullee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam benn yoon waaye dala cay dollil yëkkati la fukki daraja sippil la fukki ñaawteef bindal la fukki jëf yu rafet dal di def sa salaatu googi maanaam julli googi nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu mel ne ku gër ku gëreel fukki jaam ibnu ataillah nee na jële na ci sayid ahmad dahlaan mu ne li yonente bi wax ne man salla alayya marratan waxidatan sallallahu alayhi ku julli ci man benn yoon yàlla julli ci moom fukk yoon mu ne nit ki bu saxaloon giirug dundam mbooleem xeeti jaamu yàlla yi am yépp di ko defe na mu ware yàlla nangul ko lépp du tax mukk mu yem ak benn julli bu yàlla julli ci moom te benn julli rekk bu yàlla julli ci moom la wax ne moo ëpp daraja fopp loolu kon mu ne nga xool bu yàlla jullee ci yow fukki yoon te julli jullig yàlla ci yow fukki yoon mooy nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn yoon rek nu say xéewal war a toll nga xool kon boo saxoo salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam yàlla rek xam nu sab yool war a toll loolu tax al iqlishi wax ne ayu ilmin arfa wa ayu wasilatin ashfa wa ayu amalin anfa min alsalaati ala man salla ala man salla allahu alayhi wa jamicu malaikatihi wa xassahu bilqurbati alazima minhu fi dunyahu wa axiratihi mu ne ban xam-xam moo gën a kawe wala wan wasiila moo gën a mën a ramm wala jan jëf moo ëpp njariñ ci julli gi yàlla di julli ak i malaakaam ci kiy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa te ci julli googu mu ne yàlla da ko ci jegeel ba mu sës ci moom rëkk adduna ak alaaxira al iqlishi teg na teg ca ne fa salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam azamu nuur wa hiya attijaaru allati laa tabuur wa hiya kaanat hijjiira al awliyaai fi lmasaai walbukuur fa kun muthaabiran ala salaati ala nabiyik fa bidalika tatataharu min gayik wa yazku minka al amal wa tablugu gaayata al amal wa tudiu nuura qalbik wa tanaalu mardaata rabbik wa tamalu wa tamanu min al ahwaali yowma al maxaawifi wal awjaal nee na asalaatu ala nabi salallahu moo gën a màggug leer ci mboolem jaamu yi mooy njaay mi du lamb mukk loo ci joxe ñu fay la ko ci njëg gu gën fopp mboolem njëg yi nee na moo doonoon mbirum awliyaa yi gaay yàlla yi moom lañ defoon seen aada suba ngoon mu teg ca digal nu nag na nga sax ci salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ndax moo lay setal ci mbewte ak bépp taq-taq day sellal say jëf dalay jotale ci lépp loo mébét di duy sa xol ak i leer ba mu fees dell da nga ciy amee ngërëmal yàlla dalay fegal tiit ma ak njàqaree yay xew ëllëg yowmal qiyaam Cheikh Omar ibnu Saïd nee na Abdul Aziz ibnu Ali al Makki al Zamzami wax na ci téereem bi tudd al Fathul Mubin fi madhi shafiil mudnibin ne alsalaatu ala sayidi saadaati min ahami almuhimaati fi jamici al awqaati liman yuridu liman yuridu alqarba liman yuridu alqurba min rabbi alaradina walsamawat wa annaha tajlubu alasraara walfutuxaat wa tasfi albawaatina min jamici alkaduuraat wa annaha tataakkadu fi xaqi ahli lbidaayati wa arbaabi liraadaati wa asaabi nihayaat mu ne ki nga xam ne jege suñ borom rekk ko yitteel dara ëpput solo ci moom ci muy julli ci sangub sang yi muy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci mbooleem waxtu yi da koy ñoddil mbooti suñ borom yépp di ko ubbil bunti xéewal yi di seetal ruuxam ak xolam ci nax-nax yi mu ne salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ni muy jariñe kiy door a sóobu ci yoonu yàlla noonu lay jariñe ka àgg ci yàlla ba noppi kon amul ku ko war a weesala boppam cheikhuna cheikh ahmadul xadim radiallahu anhu wa nafaana bi barakaatihi wax na ci téeréem bi tudd masalikul jinaan fi jamci ma farraqahu daymaan amma salaatuna ala annabii muhammadin xayri bani lu ay fa hiya ajallu ma tamassakta bihi daa adaa'i l fardi faltantabihi nee na loo mën a jàpp di ca sàkku àgg ca yàlla ak am ngërëmal yàlla akub yonenteem sallallahu alayhi wa sallam salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam moo ko gën a màgg gën ko caa gaaw waaye nag nee na na fekk ngay def farata yi ba noppi kon loolu mooy wane na kenn du nangu naafila te joxe woo sa farata cheikhuna wax na ba tey ne qad nassa cheikhuna sanusiyu sharif رضي عنه الدهر ربنا اللطيف بأنها تغني عن المربي لجذبه الفتى لقرب الحب صلى الله عليه وسلم شيخنا خادم nee na al imaam as-Sanusi yu nee na salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam li mu lay ñoddi di la taf ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu doyub sëriñ ndax sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo lay yaral boppam boo demee ci masalikul jinaan cheikhuna tënk na lenn ci njariñi salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ci lu ëpp ñaar fukki abyaat loolu lépp day wane ne moom salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam amul lum yabal ci màggaay ci am njariñ ci jullit bi almajd allugawi jëlee na ci jaafaru sadiq mu ne bésub alxamis bu ne bu takkusaan jotee sun borom subhanahu wa taala day wàccee ay malaayika ci kaw suuf si ñu yor ay téere yoo xam ne xaalis lay doon ak ay bigi or dara du seen liggéey nag lu dut bind salaatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam yi jaam ñi di def ci bés bi ak ci guddig ajjuma ji ak ci bëccëgub ajjuma ja ba jant ba so kon noo ngi leen di dénk ñu bañ a sàggan ba kenn du nu bindal ca téere yooyee ay salaatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam ngir mënuñu xaar ëllëg mbokk yi salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy li nga xam ne ku koy def doo su ëllëg ndax kenn du ko jël di ko faye kenn te fu ñu ko teg balance yu ñu ko teg rek lu mu fa fekk lu ne wat ko kon ñoo ngi leen ci dolli soññi bu baax kenn ku ne gën a góor góorgóorlu ci aw sasam fa séenee di ko saxal te bañ ko jëlal ndax kat li ngay jël di ko def bis bu set addiyey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxtu woowu bu jotee dana ko xaar de boo ko joxul rek day mel ni koo diggoon dara faussé rendez-vous ba te yal nañu yàlla musal ci faussé rendez-vous suñu digganteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa